للخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله بوك جلدي بوك تلسبكتاتري سيتان سين شين بيدي دي تي في نيغلين دي نوي بباخ دي لين زيارة دي جيتل تي نيو بي سنو كليفة حاج منصور مباي ديكو جاجفل ديكو نيانا ليالا yal na yàlla fay ko liggéey bu rëy bi muy def ci diine ji ak ci tariqa bi waaye itam di jaajëfal suñu technicien bi nekk ci xarala gi wala boog suñu aji xarala ji ne ci xarala gi muy Cherif Cheikh Ahmed Tidiane jaajëfal téléspectateurs yi topp Al Misbah TV tey nag ñu ñëw ci beneen façon ku ne xam na ne li wolof naan lu defu waxu li ay dim jàmbat yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xewle ñu ngi ci weeru gàmmu tey émission bi mi ngi tudd al burdatul madih li ma ci jublu rek mooy burdu bokk guddi gu nekk incha allah al misbah tv dina ànd ak yéen benn buntu ci buntu burdu yi ñu jéem ko faram-fàcce sunu kem kattan ngir ñu mën tàqamti ko waat sunu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye itam ngir ñu mën a yëngalaat ñi nga xam ne dañoo mel ni man ci sàggan ci bëgg yunt yàlla muhammad ñu yëngal cofeel yi ngir ñu yëg ne rawukaay bi mi ngi ci bëgg yunt yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi bunt bu njëkk bi nekk ci burdu tey di guddi gu njëkk gi ñu war a firi téere bii di burdu di téere cheikh Mouhamadul Busayri yi nga xam ne mi ngi ko tuddee euh, alkawkabu adduri loolu mooy turam dëggantaan siiwee na burdu nag ñu naan burdatul madix siiwee na ko waaye ki ko taalif yenent daa def mu gis moo tax moom cofeelam ci yenent dafa dëggu lan moo tax mu def lii Muhammadul Busayri dafa feebar feebar bu metti nag feebar bi dafa ànd crise crise boo xam ne bu ko daanalee day taxalikook sagoom daanaka fu ne mu dem fa fajkat bu ñu xam ci àddina ñu boole ko ak moom ngir mu fajal ko jàngoro jàngoro ji tënni du wér bés bu ne muy gën a avancé te moom boroom xam-xam la bindkat la jàngkat la te bu sañoon fu mu toll day nekk ku wér di mën a liggéeyal lislaam liggéey bu rëy bi bi nga xamee ne jàngoro ji sonal na ko faj mu nekk ñu defal ko ko wérul àqulu rabbaani gane ko xel mu yàllaaxe xel mi tegtal ko yonent bi mu toog rek ne day woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir barkeelu ci moom yàlla def mu tàmbali ni muy woyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di feeñal cofeelam di feeñal cofeelam di ko bëgg di ko jegeñlu mu tëdd guddi rek gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa moom mu Mouhamadul Busayri Cheikh bu Busayri mu ngi tëdd feebar yonent sallallahu alayhi jël loxoom yi tedd yi raay ko ci yaram wi ci bopp bi ba ci tànk yi mu ne xifeet jóg yonent yëkkati manto jox ko ci gént gi mu yeewu nee na keroog lépp luy jàngoro ne woon ci yaramam keroog la wér moo tax nga daan dégg borom xam-xam yi naan téere bi dañ ko waroon tuddee al atu ku mel ni Serigne Mansour borom daara ji yal na yàlla defal ko ngërëm fa mu tëdd tey te woyafal suuf ci kawam daan na wax ne burdatu bur atu la waroon a tudd bur atu mooy wér comme yenent da koo raay rek mu wér mu ne loolu lañ waroon tuddee téere bi waaye itam am na ci am na ci décoration wu yonent bi sallallahu alayhi wa mu solol ko manto ci gént moo tax ñu koy tuddee burdatul madih bi mu yewo nak yëgatul dara ci yaramam yaram wi wér macha allah mu tambali nak di tagg yonent nag sallallahu alaihi wasallam di wax felam xar bopam ñaar di wax ak bopam moy buntu bu ñeek bi dinañ ci ñew ba yegg bi mu waye ba mujj gi mu lu melni crise ba ko daan dikkel dikkel ko moy ba mu ne fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun mu gàkk munatul yegal xam nga way inspiration la day ñew nga commencer di way kat yeb xam nañu inspiration la bu ñëw bu daggee da ngay pause yàlla def mu ñëw bu foofu mu dagg ñu ne crise bee ko sonnal ñu ne inspiration ba dagg na mu yemale ko fa tëdd guddi gént yonent ne ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi mu jàpp lool bi mu xëyee mu jël baat yooyu taf ko ci bi mu waxee ne fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun ci gént gi la ko yonent waxoon wa annahu xayru mu dugal ko fa peese bi jub nekk aw woy wu complet ah inspiration bi ñëwaat nag noonu la def ba li yeggalee téere bi amaatul benn gàg-gàg ba li mu yegg moo tax téere bi am na barke mag ñëpp ko daan jëfandikoo mag ñëpp ko fonk tiijaan ak ku dul tiijaan burdu ñëpp koy jëfandikoo kuy nitu yàlla ku nekk xam nga burdu loolu nag lu mat a sante yàlla la moo tax ñu ngi bëgg ci almisbaax mu jël ko utal ko ab euh, émission spéciale boo xam ne pour firi burdu rek la am na solo kon ñu tàmbalee ko ci sant yàlla gi te ñëw mu ne alhamdulillahi munshil xalqi min adamin thumma alsalaatu ala almuxtaari fi lqidami aw fi lqadami alhamdu mboolem cant yi lillahi ñeel na buur yàlla moo gën a gàtt doo fi nekk di teqat la ñeenti xaaji cant yi yàlla mi nga xam ne munshil xalqi mooy aji sos ji mbindeef yi min adamin ñu tukkee ci ñàkk thumma salaatu toppi jullik sunu boroom lënkaloo akuk sëlmalëb alal muxtaari yal na nekk ci ku ñu ki fil qadami cëg njëkk waaw amin tadakkuri jiranin bi di salamin mazajta damaan jara min muqulatin bidami cheikh mahamadul busayri nena nee amin tadakkuri ndax ci fàttaliku ndax di fàttaliku jiiraanin bi di salamin ay dëkkandoo yu nekkoon ca di salam di salam benn barab la bu nekk diggante Makka ak Madina benn place la bu nekk diggante Makka ak Madina place bu neex la su la neexoon nga ne mi ngi mel ni nga ne ngoro virage wala benn place ci palaasu Ndakaaru yu neex yooyu nga xam ne euh, nit ñi dañ fay promonaatu di dundal seen bakkan mu nekk dëkk bu naat bu rafet nag ay soppe dong dëkkoon fa. dëkkandoo yi mu tudd nag ñu ngi ci tudd soppe yam fa nekkaloo nag jiiraanin bi di salam mooy soppe yamu nekkaloo nag ca salam mu ne waaw ndax fàttaliku soppe yooyu dëkkandoo yooyu nekkoon ca salam ngeen doon dund dund bu neex tey seen diggante dagg na ndax fàttaliku ñooñale mazajta ci nga jaxasee damaan rongañ jaraa buy daw min muqulatim bidami tukkee ci nagu bët bi damin ànd ak deret muq la mooy nagu bët mooy li nit di xoolee nii mu ne ndax fàttaliku soppe yooye ca di salam ni nga koy fàttalikoo nii ndax moo waral tey sa rongañ yii di sotteeku ba ànd ak deret xam nga nit di jooy ba say bët xonq nga continuer di jooy ba sa bët di sotti deret rongañ yeeg deret ji di njëkkante kooko jooyam ya metti na mu ne ko ndax li ngay fàttaliku soppe ya ca di salam moo waral tey deret jeeg rongañ yi jaxasoo di jógee ci sa nagu bët ndax loolu la waa ji na tekk tontuwul waxoon naa la ne la Hamdul Basiri dafa xaaj boppam li ci biiram lay wax léegi nag mu mel ni kuy wax ak keneen xaaj jëmmam teg benn bi di wax ak moom naan ko lan moo la dal ba ngay jooy bay sotti deret ak rongañ ndax fàttaliku soppe ya ne woon si salam la mu ne tekki rek kimi muy waxal tontuwul mu continuer question yi ne ko am habati ndax dafa riddi moy dafa départ ar riixu ngelaw min tilqaai kazima jógee ci walu kazima kazima tamit ben place la bu nek boru Madina comme ni ngay xamé ay barab yu nat yu meuna a nek ay dëkk yu fiix dëkk yu am garab yu neex dëkk yu am ndox dëkk yu am meññet dëkk yo xamné ne dëkk ci raqiya bal lañu nek manam xel mu dal mu fiix comme ni ko touriste yi ngay gis nii du fu ne la ñuy dem de dañuy taamu barab yi ñuy dem ngir mën faa dund dund bu dal bu aisé Casamance noonu la mel mu ne ko waaw wala bokk ngelaw lay jógee Casamance ngelaw lu féex moo fay jógee ndax dafa naat mu ne ko ndax dafa am ngelaw lu rit di jógee ca booru Casamance di aw xur wu nekk ca booru Madina moom moo la dugg wa aw madaata xuyu xuyu mooy ta flash def benn flash taf albarqu melax gi walla melax gi def na flash fi zalmaa i lëndëm ya min mi ndax moom moo tax ngay mel ni ku feebar nii di jooy di tegale ba léegi mi ngi continuer question yi ngir waa ji mën koo tontu rongañam yi lu ko waral waaw mu mel ni ba léegi tontoogul mu continuer question yi ne ko waaw léegi fa maa li ay nekk lan mo ñeel sa ñaari bët yile in qultak fu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi xam nga mbeugel bu deggo fok mu joylo borom ndax la koy joylo mi ngi ci kanam dinañ ci ñew kon waji amna lu mu bëgg te feñul mi ngi neub waaye bo xolé yaramam da nga yegg ni ki nekkul dafa melni ko absent wala ko am lu ko metti léegi nak mom bëgg na xam li xew mu di ko question laaj ne ko sax fa maa li aynayka lan moo ñeel sa ñaari nagu bët yile in qulta boo waxee ak fufaa fegu leen ni ñuy sottee rongañ boo ne noppi rek xëmmataa mu gën a dooteeku sa à dire waa jaa ngi toog di jooy mais boo ñëwee ne ko sa waay noppil bàyyil sa jooy yi rek mu gën a jooy mais loolu day am ci nit gis nga am na ñoo xam ne boo leen fekkee ñuy jooy bàyyi leen ñu jooy bu dee dëj la bàyyil mu jooy bu dee da doon xeex bàyyil mu jooy bu dee da doon xuloo ñu xas ko bàyyil mu jooy gis nga boo fa nekkee di ko dàbb dàbbal nan ko bàyyil jooy yi jaru ko da ngay gis muy gën a foncé di gën a jooy ndax mi ngi commencé woon di fàtte di génne li ci biiram mais tudd bi ngay tuddaat affaire bi nan ko bàyyil jooy lii warul jooy waxam ji da ngay beesalaat affaire bi ci nopp yi muy gën a jooyaat loolu mooy fa famaa li aynaka in qulta kfufaa rek hamataa ñu doteeku wamaa li qalbika lan moo ñeel sa xol bi in qulta stafiq boo ne ko xiqil maanaam euh, bàyyil maanaam xol bu nit di jooy xol bi day gëlëm xol bi day gëlëm day ñagas day lëndëm soo ne ko xiqil ak sa xol yehi mi mu gën a gëlëm nag su doon jooy di accéléré mbir ma gën a foncé wu gën a yokk loolu mooy famaa li qalbika in qul takfufa famaa li qalbika in qul tastafiq boo ne ko xiqil rek yehi mi xol bi gën a gëlëm di lox di liw wajina pat rek di wonne ko dara xewul mu dedit ay yahsabu ndax dafa njort aji bëgg ji kon mi ngi koy bëgg weer xam ne ne la wara li an al hubba nek mbëggeel mun katimun luñu nebula mën la ma bayna mun sajimin digante aji wal aji wal moy rongañ buy daw di wacc minhu ci moom wa mudd ak aji tak gañ-gañi dañ naan diw mi ngi gañ-gañ maanaam xol buy gañ-gañi ñu ne oh man de sama xol baa ngi gañ-gañi di yëngu di fuur di fudd nga gis rongañ yi di sotti xol bi di gañ-gañi loolu mooy maa bayna munsajimin minhu wa mudtarim mi mu ne ko waaw yow sëñ bi nañ waxtaan bàyyil nëbbatu bi ndax danga defe ne mbëggeel aji bëgg ji mën na koo nëbbu ci diggante ñaar yi di feeñ ci yow mooy benn sa xol bii di gañ-gañi rek ñëpp di ko yëg ak sa rongañ yi di soti xel munu fa nëbbu waxal ak man mu melni day bëgg nangu mu ne ko gis nga nañ waxante deug lawla la hawa man gëm na ne budul won banex budul won ciofel bok lawla al hawa budul won ciofel wallahi kon lam turiq do tour dam an yi bëgg deug deug deug la wax fi sama min dafa nek ci teukh anil udali ci yeddug way yedd yi neena nit bu lam deggo ki ñew diko yedd naan ko yow xam nga ne lu dof yi ngay bëgg ni kenn du ko amal sago li moy lan nekkal nit yamale sa bëgg-bëgg mu ne bu dé mbeugé ga degguna day tax du ko dégg parce que aji bëgg dégg du dégg yeddelu aji yeddel ci mbeug daan ne ko pour mo noppal la xamal ni inni man ittahamtu tumalna nasiha shay bi laye bir ak bejaw ne ko bejaw dafa ñew dima ma bir nan ma sa mbeugel gi ëpp na fi adalin ci yeddeel inni man ittahamtu tumalna na nasiha shay laye bir ak bejaw conseil bejaw fi adalin ci di ma yedd nan ma mag nga xola sa bobba nga wextal xam nga doto xale affaire mbeugel yi ni war nga ko dépasser nekkal nit yamalel sa bobba nee na ma tuumaal ko ne ko da xamul li ma xam et encore dundoo li ma dund ay encore maandu wuloo yow sax maandu woo boo maandu woon te xam li xew dooma yeddu ma mu ne ko waaw wa shay bu bejaaw kay abaadu moo war a gën a sori ani tuhami ci tuumaal ko fii nusxin ci laay biir parce que bejaaw du fen bejaaw heure bu génnee ci mag mooy dee ngi ñëw de loolu ko mag ñi daan wax nee nañ muy tóor tóoru soo demee ba karaw gu weex tàll ñëw sa bopp bi nag xamal ne sëriñ bi soreetoo pax mi de dee ko waajal foo toll mu ne xam nga béjaaw mi naan ma doo xale ku béjaaw génn ci sa bopp loolu lu wér la mu ne ànd ak yëpp dama koo tuumaal ko jàllale ay laay biiram nekk mënuma laa déglu ndax abdat ka xaaliya dépassé naa la su ko defee loolu daa mel nii euh, mooy bunt bu njëkk bi euh, su ma juumul fa inna amaarati bi suui ma taazat min jahliha bi nadiri shaybi wala rami wala aad min qiral jamili qiral dayfin alama bi rasi xayra muhtashimi non des na law kuntu alamu anni ma uwaqiru katamtu sharran badali minu bil katami man li bi radil jimaa'i ah des na de ah kon buntu bu njëkk bi mel ni na des na nag sama téere bii du def ay bunt mu ne fa inna amaarati ni ka aji digal sama bi suui ci lu ñaaw ma taazat waaruwul min jahliha ngir réeram ga sama bakken bii la tuddee ne moom mooy defkatul non bunt bu njëkk bi jeex na fa inna amaarati mooy ñaareelu bunt bi su ko defee naa ñaan ñu yemale foofu bunt bu njëkk bi tey mooy guddi gu njëkk yi ñu yemale ko foofu bu subaa ñu jël ñaareelu bunt bi fa inna amaarati bi su suui ma taazat min jahliha bi nadiri shaybi wal harami jaajëfal Chérif Cheikh Ahmed Tidiane jaajëfal téléspectateurs yi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu